Thione Seck dina wax ci benn woyam ni lu waay di def di ko xeeb moroomam tedd na ci buur yàlla ni mel donc man leçon bi may gën a retenir ci lion yi mooy loolu rafetlu également mbokk soldaar yi nga xam ay sénégalais lañu ñu jàppoon leen fële ñu nekk Gambie ak MFDC yàlla def na ñu libéré leen ñu di ko rafetlu mais bëgg ñu bañ a yem ci loolu ndax man bokk naa ci ñi gëm ni defe naa ni Bassirou mi xam na dara ci li may wax gëm naa ni jàmm définitive diggante MFDC ak le gouvernement du Sénégal sorewul li ci des mooy waxtaan boo nga xam ni war nañ ko mën eggale te ku mel ni man xamu ci dara wala lam ci xamoon daaw parce que situation day évoluer am na ñoo nga xam ne dossier boobu peut-être daaw ak daaw jeeg xamoon nañ ci lu bëri mais xëy na fi ñu toog di wax mën naa ci xam luñ ci xamul donc nit day nangu ni situation day évoluer kenn ku nekk nag boo xamul fa situation bi toll nga toog bàyyi ñi ci war a wax wax ci jàmm mën a am ci réew mi ñu gis également suñu mbokk yoo nga xam ne dañu taxawal benn mouvement bu ñu wax ànd ànd sàmm jikko yi nekk ci ay manifestation mu indi coow du jëm ci affaire xeex ngóor jigéen la ñu wax mais ñun li ñu jàpp boobu ci diggante boobu réeroo amu ci de ñàkk waxtaan moo ci am ndax jàpp naa ne ba ñu jëlee seen kayit jébbal ko ay député député yi ñëw indi ko assemblée ni dañu bëgg ñu yokk def euh, góor jigéen crime maanaam comme ku rey nit ba ñu ko defee bu ñu indi woon dossier bi assemblée ñu waxtaane ko d'abord li ci ëpp solo du sax ñoom ñi ko indi mais sénégalais yi déglu sénégalais yi seetaan bu boobaa danañ xam ni moo ne loolu ñuy wax ne dañ ko criminaliser day daanaka am na ba noppi ndax boo duggee ci code pénal da ngay gis ni góor jigéen loi bi ming ko tëj juróomi at ba fukki at ñu gis ni lu mel ni drogue criminalisé nañ ko depuis la loi Latif mais ndax biñ ko criminalisé ak léegi wàññiku na wala yokk na loolu aussi borom xam-xam ñoo ci war a def étude ñu gis ne drogue boobu dix ans ba vingt ans la viol dix ans ba vingt ans la mais est-ce que bañ ko criminalisé ak léegi wàññiku na wala yokku na. te man problème bi may am ak yenn yenn dossiers yi par exemple bu ñuy wax euh, bu ñuy wax par exemple euh, peine de mort may wax ni dama ànduma ci peine de mort c'est pas parce que nit bu jàppee ne rey ko waruñu ko rey sama problème du loolu sama problème mooy nit ay àtte nit te nit matul nit dafay juum matul un an pour juste benn exemple parce que exemple yi bëri na am na benn américain bu ñu tëj fanweeri at ak juróom jot na ko tëdd ñu soog gis ni kañ ko ne woon yaa ko rey du yow du moom yaayam dong la waa ji wax ni sama yaay dong moo mës a gëm ni liñ ma tuumaal defuma ko waa kooku bu tey fekkoon ñu rey ko ñu gis ne la mu lañ dëkkoon tuumaal doom nu ñu def voilà le problème te juge bi àtte nit dong la du leneen juge bi àtte fekkiwul ba ëf mbir mi di xew dañu naan diw xew na nangam xew na ci bërëb sàngam mu egg ci police mbaa gendarmerie ñooñu def seen enquête man gis naa yàlla seedal benn waay boo nga xam dama ko fekkee prison man sa bopp dama doon jooy parce que lañ ko tuumaal defu ko mais la ko dugal moo ko def moo ko wax question réponse nangam mu ni waaw te defu ko mais milieu police surtout boo fa duggee gaa yi wër la dañ la fay indi huit heures du matin bàyyi la fa ngay toog di toog di toog ba six heures ñu soog a commencé di la entendre bu la yàlla mayul sago mën nga wax mbaa nga def loo nga xam ni nag mu loo xam sax xëy na defuloo ko donc pour dellu si ci question bi jàpp naa ne li gënoon a jaadu te weesul mooy ñiy wax ni. ànd sàmm jikko yi kilifa yi dañu war a toog ak ñoom luy seen problème ñu ni lii ak lii mais ku nekk gis na position waxuma sax la ne ci code pénal bi cinq à dix ans de prison loolu waxuma ko mais position yi président la bu jël ci loolu ku nekk gis na ko kon jàpp naa ni mbir la moo nga xam ni presque sénégalais yëpp ñoo ci bokk position même ña koy def même ña nga xam ne yàlla nattoo na leen ñuy def loolu sax jàpp naa ni ñu ci gën a bari gën a lu leen ak am na ci ñoo nga xam ni xëy na sax buñ ci mënee génn génn ci kon ñëpp ci bokk position mais comme ñëpp ci bokk position nañ toog waxtaan ci lan mooy empêché lan moo tax ba ñi nga xam ne ñooy bëgg loolu ak yore réew mi mënuñu toog ci benn taabal lu ngeen bëgg lii ñun de lii ak lii ak yi am na ñun ko defee nii ak nii lañ ko defee parce que loo nga xam ne déjà code pénal nee na ku ko def ñu tëj la juróomi at ba fukki at. man wóor na ma ni sénégalais yu bëree bëree bëri yu ciy wax xamuñu ne loolu la code bi tëral xamuñu ko de dañu defee ne lu ñu libéré la ñoom ñiy wër di défendre aussi nañu leen respecté parce que il faut ñu bàyyi saa bu nit waxee ñu ni diwoo ko yabal saa bu nit ñu waxee ñu ni day politique saa bu nit waxee ñu ni diw la faral moo tax te nit ñi dañu am seen i ngëm-ngëm dañu am seen conviction dañu am seen bëgg-bëgg dañu am seen gis-gis ci réew mi. président de la république ëpp wu la gis-gis ci réew mi président gënu la bëgg réew mi député bi gënu la ko bëgg ministre bi gënu la ko bëgg donc nañu xam ni réew mi ñoo ko bokk lu ñëpp bokk dañ koy waxtaane leneen li ci des mooy euh, ñëpp xam nañ suñu région bi jax na ba tax na français yi génn nañu tey Mali mais ñun sénégalais loolu ñun la gën a touché ndax ñun ñoo def frontière ak Mali moo tax souvent bu ma daan dégg ñu naan France dégage toujours benn question laa daan wax bu ngeen dégager France ku ngeen bëgg a teg foo mu leer bu ngeen dégager France kan ngeen fii teg parce que ku nekk xam na ni suñu réew yi amu ci benn boo nga xam ne am nga ay moyen matériels financiers militaire pour jàkkaarloo ak jihadistes si xeex leen parce que ñi ngay xeexal ñi ngi sa biir kër xëy na sa doom ci la bokk xëy na sa jabar ci la bokk ak ñeneen ak ñeneen xam na ni ci biir réew mi depuis des années am na li ñuy tuddee des réseau dormants xam nañu leen identifier lañ leen te tous les jours damay wax ni police ak armée police ak gendarmerie li ñuy faagaagal ci ay pexe li ñuy jàpp ci ay nit yuy dox ci lu mel noonu sénégalais bi ñu ko xamoon dootuñu dem gàmm dootuñu dem ay jàng dootuñu dem cant parce que da ngay xalaat ni foo dem rek dara mën na la fa fekk. mais gàcce gaalaama ñu nga xam ne ñi ngi fi vraiment di di di di def liggéey bu mel noonu li ci des mooy élection yi sargal bu baax ñi ngi xam ne ñun dañu doonoon suñuy candidat mais félicité également ñi gagné te doon ñu woon suñuy candidat parce que peuple bi moo décidé loolu y a pas de problème demoon nañu élection am nañuy candidat def nañu li ñu war a def bëre daanu du du du gàcce gàcce mooy lan daw ba daanu loolu mooy gàcce président Wade daf ma naa waxoon saa boo duggee ci néeg bul booy toog ci fu mu ma ne bul wan bunt bi ginnaaw ma ne ko pourquoi mu ni on peut me tuer mais on me tirera jamais sur le dos loolu xam-xam la donc bëre ba daanu c'est normal waaye daw ba daanu moom mooy musiba te gis nañ ne les candidats que nous avons je prends l'exemple wax naa ko léegi jël exemple Zeyna ici à Dakar nous avons un candidat qui s'appelle Abdoulaye Diouf Sarr man gis naa ni mu battre campagne pendant Mohamed tu as sais lépp lu mun mën a def def na ko lu mu war a def na ko mais élection mooy lan dama bëgg lii kii bëgg kii bëgg réew mi ni ko di kii moo ñu doy jeex amul débat li ci am solo nag mooy am nañu une large majorité au Sénégal parce que sur les 3 millions pratiquement les 2 millions ont voté pour la liste de Macky te ba ñuy dem élection yi yéen tamit presse bi dama leen koy wax dee leen ñu ko fàttali ni ngeen di defee vaar ni ngeen ñuy waare ñun dee leen waar euh, waa côté bale ñoom langug ma daawul aw ah, dee leen waar parce que ñoom ñoo fi taxaw nii dañuy dem élection yi yii nii mooy premier tour élection présidentielle waaw du fekkee ngeen ko dem nañ premier tour kaamu Macky Sall am na tey moom ak xaritam cinquante huit virgule pour cent kon bu doon élection présidentielle sànni nañ kaawaas gi bu doon élection député ñoo ngi plus de 130 députés sur les 160 moo tax d'ailleurs may ñaawlu bu baax a baax a baax bi ay sénégalais toogee di wax naan vote intelligent maanaam vote ñi am xel ñi am xel opposition la ñu wateel dof yi parce que c'est ça aussi dof yi majorité bi la ñu wateel ñii ni qualité bi qualité ñi am qualité nee nañu maanaam jantalmaan yeeg voilà ñooñu dañu wateel opposition ñun ñu woteel majorité daal ñun ay ay ay paax ndox la ñu c'est extrêmement grave loolu tey bu ko Éric Zemmour waxoon en France parce que c'est un raciste lañ koy taxé bu ko Marine Le Pen waxoon tey ngi gis presse bi yëpp ko attaqué ko mais c'est des sénégalais bon teint ñoo toog jàkkaarloog seen ay moroomu sénégalais ñu la yéen amu leen xel ay dof ngeen ñi woteel fii ñoo am xel ñi woteel fee ay dof lañu donc ñoom dof yi sax seen i baay ak seen maam ak seen nijaay ngi ci. ci dof yooyu dof yooyu leen jur ba tey ñu mën a tax di tax sénégalais ay dof ñoo ñu amul qualité ñoo leen jur ñoo leen jàngal ñoo ñaq di bay di napp di def leneen liggéey joxe seen impôt ñoo jàngal leen di ba tey ñu mën taxaw saaga leen ni leen ay dof ngeen amul leen xel du ngeen ay nit parce que woteel ngeen la majorité présidentielle. il faut que ñu respecter sénégalais yi excusez wu sénégalais yi te kàddu yi mel ni bañatuy jib parce que luy taal am réew la. ci zaret. nit nag lu mu xam wax ko parce que olof yi nañu fu jàmm yenn rek nit dafa xam lu mu waxul waaye koo jàkkaarloo ni ko nàngam rek mën na jàkkaarloo wax la lu fukkam mais yare wuñ ñu noonu bindoo wuñu noonu gëmuñu ni réew mi noonu lay doxe parce que réewum senegal mii diine dafa ñëw lenn rek lañu yokkal julli leneen lu mu mënti doon diine daf ci fokk ak ñoom jom diine fi la ko fekkee ñun ngoro fi la ko diine fekkee ñun bul tooñ fii la ko diine fekk bul sàcc fii la ko diine fekk bul dugg ci fu jàmm fii la ko diine fekk. nangu liggéey nangu liggéey fii la ko diine fekk. donc ñun xam nañu ban réew la ñu nekk xam nañu ñan la ñuy waxal dans ce pays là donc il faut que les gens arrêtent de tenir un tel discours. donc nous en tant que majorité li ñu des tey mooy dem nañu élection am nañu près de 2 millions de voix sur 3 millions gagné nañu plus de euh, à peu près 38 départements 533 communes. kon macha allah gàcc ngaalaam mais li ci des mooy fa ñu perte am na sax sama benn sama benn jigéen sama jabar maa ko gis fu la ci ginnaaw ba ñu gañee seen commune da doon jooy ba ne ko looy jooy <laughs> mami je te salue au passage <laughs> non non élection nga dem c'est comme mbër mi dem ci làmb ji rek match football da ngay gagné tey suba ñu gagné la et puis c'est tout on passe à autre chose donc remobilisons-nous parce que a les moyens de gagner largement pour continuer di diriger réew mi mu des élection du euh, violence bi amoon ci élection yi wax naa ko plusieurs fois réew àddina day dox ni ñuy campagne bu soppeekoo force de sécurité dañu war a soppi doxin bu njëkk da ngay xëy ñu joxal programme ni PDS ña ngay meeting yëmbal PS ñu ngay meeting Caaroy euh, LDMPT mooy meeting euh, Wakam nga jël ay policiers wala ay gendarme ñu encadré leen coow du am mais léegi loolu amatul ku nekk da ngay xëy jël sa caravane di wër. bu loolu amee nag ministre de l'intérieur war a mën a jël ay responsabilités parce que am na loo xam du rôle président de la république borom kër day joxe dépense waaye doo joxe dépense pare ñëw ci waañ wi di upp mbaa ngay dem di duggi marché donc ñoo war a moo war a jël ay responsabilités ba nga xam ni ay patrouille day am ci biir dëkk bi élection yi jàll na mais yeneen a ngi ñëw te gouverner c'est prévoir doo bàyyi ba ay nit songo di xeex nga daw di atte ji loo gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw fii bu ñu woowoon police ni leen xeex am na lu ñu gaaw gaaw gaaw 30 minutes dinañ ko def soog a ëgsi mais foofu lu ne mën na fa am donc dañuy jël ay patrouille ñuy wër ci dëkk bi xam ne caravane ngi jaar fële nga kar jaar fële bu ko defee kenn du jote ak sa moroom dara bi ci des mooy ni ñuy fale maire bu jëkk daawul demee nii dañ daal fat liste conseiller daje fal maire ak adjoint bi ñu nekkee commission dialogue politique ñu ne nañ ko changé wax naa ko ci commission ba ñu nekkoon wax naa ko en séance plénière devant le général Niang et tous les man euh, délégués yi fa nekkoon on était plus de cent wax naa ko ci presse bi wax ko ci audiné ànduma ci pour beaucoup de raison benn bi mën nañ ko tuddee raison politicienne politicienne parce que fal list ba pare fal maire moo ëpp jàmm ci parti au pouvoir c'est vrai loolu mooy la raison politicienne mais beneen raison bi mooy yeneen raison yi mooy boo jëlee dañuy fal maire directement ba pare conseil yi fal adjoint yi kon maire bi nekkatul nawlu ko nawle conseil yi parce que bokk ñu nu ñu leen di fale que le suffrage universel direct la kii ay conseil ñoo ko fal te li ko firndeel mooy li am Guédiawaye tey ñu ngi nar am maire boo nga xam ni minoritaire la dans le conseil municipal mën na am aussi au niveau du bureau municipal mu nekk fa minoritaire parce que démb bi ñu naan nañu fal premier adjoint ña voteel candidat wu Benno mu ëpp ñi voteel candidat wu maire bi mu indi aussi beneen problème nga xam ne je l'avais soulevé je reviens mooy affaire parité parce que loolu dafa am lu ci des ni ñu fale maire tax na ba comme dañ ko fal directement soo ko fal conseil euh, conseil soo ko dajal pour fal adjoint yi mais problème day am par rapport à la parité donc loolu il faut que texte yi régler ko texte yi wax ni par exemple c'est juste un exemple bu may joxe maire bi bu nokkee góor premier adjoint bi day doon jigéen wala maire bi bu nekkee jigéen premier adjoint bi day nekk góor ñu bind ko noir sur blanc parce que le droit par essence le terrain de l'interprétation kenn ku nekk bu ñu ko bindul mu leer da ngay interpréter ni mu la neexee leneen li mu ci topp mooy ñëpp a ngi xaar ñu nommé premier ministre bu bees depuis élection yi mais bu ñu fàtte ni weeru juillet feeg juróomi weer dañuy dem élection te élection yi ñuy jëm muy élection député yi mooy génne majorité nationale parce que lii ñu génn ay élection locale la te élection yooyu bu ñëwee à la kulli alin dañuy changer de gouvernement te ñàkk après élection législative mais changer gouvernement après élection locale du obligation président moom lay neex mu def ko bu ko neexul du ko def ensuite fal premier ministre ci moment bi du obligation su neexee président mu def ko bu ko neexul du ko def ndax li ñuy wax lu fi mas a am maanaam jurisprudence ñun bi ñu nekkee au pouvoir ak le président Wade dans la constitution dañ ko réviser dugal ci un poste de vice-président mais toog nañ ay at ñaari at au moins kenn falu ko ba mu kenn mësu ko fal sa ba ñu changé waat constitution bi donc président amul obligation tey pour fal un premier ministre parce que encore une fois dañuy seet loo nga xam ne lu lu lu yenu maanaa la parce que constitution mooy lan constitution mooy li nit ñi xalaat bëgg ko ñu woo ay kàngam ni leen bindal ñu ko ci droit nu koy defee loolu mooy constitution du leneen comme ci situation boobu la ñu nekk diggante fii ak jouru élection yi nekk juróomi weer te boo xoolee ci biir juróomi weer yooyu nga di ci def pré campagne def ci campagne muy au moins un mois code électoral bi wax la ni code électoral bi wax la ni nañu def choix des candidats yi déposer ko nangami jour je crois que c'est 60 jours su ma juumul avant le jour des élections def révision des listes électorales distribuer les cartes d'électeurs maanaam bu ñu seetee li ñuy wax jour franc li ñu dox suñu diggante ak élection ñaari weer la bu dul loolu même boo formé gouvernement bu bees dans un mois dans deux mois kenn talatul toog ci bureau ña ngay dem di defi campagne électorale parce que tu es ministre mais tu es également candidat aux élections législatives moo tax man li may li ma jàpp te bu ma nekkoon à la place du président loolu laay def te su ma ko doon xelal loolu laa koy xelal mooy sa ministre nañ dem liggéeyi tey ministre boo dem dafa fekk kenn ñëpp ngi toog di xaar la nomination de premier ministre kañ la xamuñu te même bu fekkoon ne dañ ni la samedi dañuy nommer premier ministre samedi dañuy changer gouvernement yow ngay ministre mais liggéeyal bañ ni la jóge nga fi bis bu ñu la nee nekk nekkatoo ministre nga gérer les affaires courantes ba ki lay remplacer ñëw donc vraiment damay lancer un appel à mes amis ministre dem nañu jam ñaajow devant le président devant tout le monde ma sargal leen féliciter leen parce que xam naa ne liggéeyu ministre dafa metti lu bon ñu ni yow lii li ma Boubacar Sall yàlla na ko yàlla xare ajjan daan wax mu ni ma am na loo bu ñu ko xeeb bu la naqari ndax ndajem gumba ak gaana derub yàlla du fa rafet ndajem gumba ak yàlla du fa rafet ndax ku ci nekk la ko dal yàlla ma ko teg ah? kon ku am lu la naqari rek ni ministre bee man xuloo naa avec Serigne Mbaye Thiam parce que SDE dañ ma indil seen seen eau facture u cinq cent mille ma woo ko mu di ma lakk ay daadaa ma ne ko yow doo dara <laughs> pourtant maa ko tooñ et c'est comme sa lu yàqu rek dañu naan ministre jàmbaar la ñu def parce que quand ku sañoon bu ñu la woo sur 17 million de sénégalais ñu tànn ne yow lañu ñu dénk sport yow lañu dénk nangam boo sañoon même bu dul dara sax di fa liggéey liggéey boo nga xam ni foo jaar ci mbedd bi ñu tànn waa góor ñëpp ko bëgg borom kër bu nekk boo sañoon sa waa kër. ñooy dàq lu ñuy lekk ñooy gën lu ñu sol ñoo gën fu ñu tëdd seen oto yi gën a neex ak leneen ak leneen boo ko deful rek c'est parce que mënoo ko donc vraiment encore fois je les félicite mais nañ dem liggéey nag nañu génn seen kër yi nañu bàyyi sangu yi ñuy sangu 24 heures sur 24 sëriñu Kolda yeeg yu jigo sax am na ñu fi indi <laughs> ñëpp a Ndakaaru di sangat di gas di suul boo demee dara boobu say euh, <laughs> xar yu weex yëpp jeex nañu <laughs> xar yu weex yëpp jeex nañu donc vraiment il faut que ñu dem liggéey nañu liggéey ay jàmbaar lañu nañu dem liggéey ku ñu yi nga xam ne lool la ku reconnu nga xam ne loolu la te changement de gouvernement comme amagul ku nekk liggéeyil ma jeexal ci ñaari question mooy grève enseignants yi métti na ci ñëpp gouvernement bi def na effort génne defe naa 69 milliards teg ci taabal ji enseignants yi d'accord ñu ci waaye yaakaar naa ne am nañu ay propositions ñu war a joxe su ma juumul suba samedi la ñu war a tasewaat ngir yàlla nañu yërëm askan wi de part et d'autre ñaan vraiment kenn ku nekk def li nga mën pour ñu mën a juboo waa santé également dégg naa lu ñu yëgël parce que rek c'est normal bu ñu joxe kii rek keneen lu dox joxuñu ma et il faut savoir que grève enseignants yi li ko indi ñun ñoo ko indi de ñun biñu fi rek Ablaye Wade ñoo indi grève enseignants yi peut-être loolu aussi dañ koy fàtte rab euh, euh, fàtte bu gaaw parce que am na ay magistra ay professeurs tout ça bi ñu waxee Abdoulaye ni ko suñu indemnité logement lii la suñu salaire lii la il a dit non c'est pas normal daal ni ministre des finances Abdoulaye Diop yokkal leen huit léegi nag yow ak kii yéen a yam njàng am na bac plus sept wala six man ma am bac plus trois. yàlla def ma am fu ma nekk moom mu am fu mu nekk muy gagné 3 millions wala 2 millions man may gagné 300000 c'est un problème wax foo mu wax ji loolu la mais bon lu ci nekk bu ñu ko waxtaanee je pense que mën nañ trouver ay solutions c'est valable également pour agent ASP yi ma dégg ne dàq nañ leen démb c'est vrai dañoo foote c'est clair nit bu defee faute da nga ko naan yaa tooñ mais kii seen njiit aussi na dawal yërmande xam ne agent ASP benn boo ci jël fukki nit a ngi ci ginnaaw yoo nga xam ne xëy na bu ñu ko dàqee saaku ceeb ba mu doon jënd weeru dee di ko yóbbu këram dootu ko am ça pose des problèmes te bu ñu nekk ci réew moo nga xam ne dañu ñu siiwa wut wutal nit ñi xëy nit ki même bu juumee mën nañ ko jubbanti mën nañ ko wàññi teg ko ci yoon woo nga xam ne xëy na loolu dootul am mais vraiment c'est un appel bu ñu lancé au directeur général te xam nañ ni nit ko dal la muy biram Faye xam nañu ni souvent ay coow day am ay problème am dina am nu mu ko régler en tant que père de famille mais lii aussi vraiment dañ koy ñaan mu dawal yërmande pour que ñooñu mën a retrouver seen place maa ngi leen di gërëm di leen sant su amee ay laaj mën nañu ko